dimbali nee na ngeen dégloo déglu leen Oustaz nee na ngeen déglu seeni ndaw waaw waaw waaw mbokk yi asalaamaaleykum mbokk yi Oustaz Pape Anne mi ngi leen di nuyu asalaamaaleykum ziara ñëpp nee mi ngi ziar ñëpp mi ngi jégalu bu baax ci kàddu yi Oustaz Pape Anne mi ngi jégalu bu baax ci kàddu yi mi bëgg a yëkkati sunu kilifa dafa agsi léegi nee sunu kilifa dafa agsi léegi directeur général. nee seen directeur général. di Alaaji Birane Ndour. waaye mu ñëw. nee waaye Birane ñëw. mu ñëw lool sax. nee Birane bu directeur. nee ndax seen directeur. di bàyyi bu baax bi di bàyyi bu baax bi. alaaji di alaaji Buuba Nduur. teewaayam rek. nee teewaayu alaaji Buuba rek. nee président Youssou teew na. nee moom bi daan teew na. nee Njaga teew na. nee groupe Futurs Médias gépp teew na. nee alaaji Buuba. sànni fi kàddu yu am solo. nee sànni dafa ay kàddu yu am solo. waaye teewaayam bi. nee waaye teewaayam bi ren bi. wane. nee mooy wane ni. nee mooy wane. mbaax oustaz nee di sunu kilifa. général. nee di sunu directeur général. sëñ Moustapha Dem nee mu sëñ Abdou Aziz Al Amin mu sëriñ Babacar bi jox Alaaji Modou wér bi jox Alaaji Modou Fall mi wér euh, nee sëriñ Ousseynou Laye ngi nii toog nee Pape Abdou Aziz Sy bu sëriñ Babacar Abdou Aziz nee moom itam ñëw na nee ñoom Abdou Aziz Ndiaye ñoom Alaaji Mbaye Diop nee kilifa yu bari teew nañu ci tudd bi nee moo xam ci wàllu baayam. moo xam ci wàllu kër yaayam. moo xam ci wàllu kër yaayam. moo xam ay goroom. ne moo xam ay goroom. kenn manqué wul. ne kenn manqué wul. waaye alaaj biraan. waaye ne alaaj biraan. sa teewaay bii. ne sa teewaay bii. bëgg nañ ci lool bëgg nañ ci lool. ndax tey jii day. ne ndax tey jii day. télévision Futurs Médias. télévision Futurs Médias. boo demee ca bureau ya. boo demee ca bureau ya. dana wét lool. dana wét lool. ñoom Oumou Ndiaye nga ne. ne ñoom Oumou Ndiaye nga ne. ñoom Aana nga ne. ñoom Aana nga ne. jigéen ñi kenn manqué wul. ne jigéen ñi kenn manqué wul. kon loo ngi lay sant. ne kon loo ngi lay sant. yàlla yokk la dëgëral seedeel. ñu ngi seedeel. ñu ngi seedeel. Chérif Ibou Seydou Laye mii. Chérif Ibou Seydou Laye mii. Chérif. Chérif. ñu ngi lay seedeel. nee ñoo ngi lay seedeel. ñun ñii. ñoom ñii. suñu nekkin. nee seen nekkin. ci groupe Futurs Médias. ci groupe Futurs Médias. ñu ngi lay seedeel. nee ñu ngi lay seedeel. li commencé. li commencé. ci président Youssou Ndour. ci président Youssou Ndour. li commencé. li commencé. DG. seen DG. Birane Ndour. Birane Ndour. Ndiaga Ndour. Ndiaga Ndour. Bouba Ndour. ñu nekk seen ginnaaw ñëpp. nee ñu nekk seen ginnaaw ñëpp. yëpp ñu am ci ñun. yëpp ñu am ci ñun. ñoom ne cofeel gi doon ci ñoom ne kon ñoom amuñu seen fay yàlla yàlla yokku leen dëgëral ne ne oustaz Modou sëriñ bi ngi lay seedeel baayam gërëm na ko yaayam gërëm na ko ay gorom gërëm na ko boolem gërëm na ko mais kon baax na di kàddu yu am solo sa digganteeg soxna yaa aw mu baax mi ak sa digganteeg sa xarit yi sa nawle yi nga xam ne ñoom ngay liggéeyandool ñu def une forte délégation ñëw wuyu si la ci sa bis bii tey nga doon sant nag yëkkati ay kàddu nekkoon point bu am solo sama tata kanam moom dugg si doon wax ay kaddu ñu bëggoon rek tubaarkal la presse bi mi ngi la tiim bu ko defee nga yeggale say kàddu ñu daal di ndëj li nga xamante ni mooy interview nee na xanaa mi ngi leen di gërëm rek ni mu ko waxee woon sànq rek tey daal bisu mbégte la Serigne Cheikh Tidiane si nee na Serigne Cheikh Tidiane si nee na nit kenn du ko xeebal bisam nit kenn du ko xeebal bisam kenn du ko xeebal soxlaam. kenn du ko xeebal soxlaam. kenn du ko xeebal sëriñam. kenn du ko xeebal sëriñam. te lii nag laa am. nag te ñii rek laa am. mooy sama bis. mooy sama bis. te su ma xewlee. te su ma xewlee. télévision Futurs Médias déplacé wu ñëw télévision Futurs Médias wu ñëw. loolu sama xol sedd na loolu na ci. ndax bu ma génnee fii di liggéey ndax ñëpp xam na ni ñëpp xam nañ ni. fenn rek laa jëm fenn képp laa jëm. muy Futurs Médias mooy Futurs Médias. kon buñ fi fi ñëwee. mbégte la la ci man. maa ngi kontaan ci ñëpp maa ngi kontaan ci ñëpp. yàlla na ma yàlla bàyyee ak ñoom yàlla na ma yàlla bàyyee ak ñoom. yàlla bu seytaane yàq suñu diggante yàlla defal leen xéewal yu yaatu yàlla leen xéewal yaatu. ci darajay Seydina am darajay Seydina Mohamed kontaan naa kontaan naa. naa sama xol sedd na kon kàddu yooyu moo jóge woon ci Oustaz Modou Fall borom bis bi ñu ngi koy ñaanal bis bi yàlla nañ jiglaayam bis bi yàlla na muuru tey nag nee naa ko fii a xat ndax sa mét sa trop merci sa merci beaucoup uh-huh. sa baax na baax na bari na Oustaz Modou Fall amoo sens interdit ci réew mi ak bitim réew loolu li la ko may nag mooy da ngaa kennal Seydina xam sa bopp defar sa jëm ba ku la gis a di wax nag kàddu yu yëkkati yoo xamante ni yu am solo la ku ko dégg man nag moom moom la la àdduna bi yëpp nawet ñu ngi lay ñaanal nga yegg naw yoon benn pakk bañ laa fel xayru kallaami maa xalla wa dalla jërë ngeen jëf kon ma daal di delloo kàddu waaw oustaz mu daal di wax moom li mu bëgg a yëg oustaz bi war naa mën a mel nii ndax xam nga lu waral loolu yow yontu yàlla Muhammad moo la njëkk a tagg oustaz moo ne xayrukum man taallama alquran wa ma nga taxaw fi nga taxaw fan nga taxaw wa ma atakum rasulu fa xusuhu wa ma naxakum anhu fantahu yow li ngay digla mooy lépp lu ci yàlla Muhammad digle yaa nga ca waaye lépp lu mu tere yaa nga ca damay wax ne ko oustaz da nga ñoo jàppal ci moom daanaka suñu borom mooy fole suñu borom mooy yëkkati waaye na am fu ñu ko jaarale man bu ma xamee oustaz mii yaa awa mii moo tax ñu xam ko ci télé bi buñ ko xamee fu ñu ko xam yaa awa moo tax ñu xam ko waaye oustaz dafa ñëw confirmer loolu jikkoom rafet am xam-xam loxo bu setee mën a bokkali nag oustaz suukar bu la tàggujee sangu ji bu del sa yeggul te kër baay kër baay jëtt la rek la fa sa ndey rot rek loolu ngay naan ah. oustaz kontaan nañ ci yow bëgg nañ ci yow ah. yàlla fay kii wax nag mooy bur jëwal maa ngi nii oustaz yaa ma ko tàmmal loxo ci pause ma ñibbi tabaarakallaahu jërëjëf jërëjëf oustaz foofu nga nekkoon baax na di kàddu yu am solo sa digganteeg soxna yaa aw mu baax mi ak sa digganteeg sa xarit yi sa nawle yi nga xam ne ñoom ngay liggéey ndool ñu def une forte délégation ñëw wuyu si sa bis nga doon sant nag njëkkati ay nekkoon point bu am solo sama tata kana moom dugg si doon wax ay kàddu ñu bëggoon rek tubaarkàlla presse bi mi ngi la tiim bu ko defee nga yeggale say kaddu ñu daal di li nga xamante ni mooy interview bi. nee na xanaa mi ngi leen di gërëm rek. ni ma ko waxee woon sànq. ni ma ko waxee woon sànq rek. tey daal bisu mbégte la tey daal bisu mbégte la. Serigne Cheikh Tidiane si nee si nee na. nit kenn du ko xeebal bisam nit kenn ko xeebal bisam. kenn du ko xeebal soxlaam. kenn du ko xeebal soxlaam. kenn du ko xeebal sëriñam. kenn du ko xeebal sëriñam. lii rek laa am. nag ci ñii rek laa am. mooy sama bis. mooy sama bis. te su ma xewlee. te su ma xewlee. télévision Futurs Médias déplacé wu ñëw télévision Futurs Médias déplacé wu ñëw. loolu sama xol sedd na loolu sama xol sedd na ci. ndax bu ma génnee fii di liggéey ndax bu ma génnee fii di liggéey. ñëpp xam nañ ni. ñëpp xam nañ ni fenn rek laa jëm. fenn képp laa jëm. muy Futurs Médias. mooy Futurs Médias. kon buñ fi ñëwee. kon buñ fi ñëwee. mbégte la ci man mbégte la ci man. maa ngi kontaan ci ñëpp maa ngi kontaan ci ñëpp. yàlla na ma yàlla bàyyee yàlla na ma yàlla bàyyee ak ñoom. yàlla bu seytaane yàq yàlla bu seytaane yàq suñu diggante. yàlla defal leen xéewal yu yaatu yàlla defal leen xéewal yu yaatu. ci darajee Seydina Mohamed ci darajee Seydina Mohamed. kontaan naa kontaan naa. jërëjëf bég naa sama xol sedd na. kon kàddu yooyu moo jóge woon ci Oustaz Modou Fall borom bis bi. ñu ngi koy ñaanal bis bi yàlla nañu diglaayal bis bi yàlla nañu muuru tey nag nee naa ko fii dana xat ndax sa merci sa trop merci sa merci beaucoup uh-huh. sa baax na baax na bari na Oustaz Modou Fall amoo sens interdit ci réew mi ak bitim réew loolu li la ko may nag damay dangaa kennal Seydunaa Muhammad ba jàng jotee nga jàng ba dañ ci réer xam sa bopp defar sa jëm ba ku la bëgg la waaye defar sa jikko ba ku jaxasoog yow dootu la mën a muñ wax nag ay xadis di wax ay yoo xamante ni yu am solo ku ko dégg man cee defaru fa tabaarakallaahu loolu yëpp nawe ñi ngi lay ñaanal nga yegg naw yoon benn pakk bañ laa fel xayru kallaami maa xalla wa ngeen jëf kon ma daal di delloo kàddu bi oustaz mu wax a yëg oustaz bi war naa mën a mel nii ndax xamul a loolu yow yontu yàlla Muhammad moo la njëkk a tagg oustaz moo ne xayrukum man taallama alquran wa allama nga taxaw fi nga taxaw fan nga taxaw wa ma atakum rasulu fa xuzuhu wa ma naxakum anhu fantahu yow li ngay digle mooy lépp lu ci yàlla Muhammad digle yaa nga ca waaye lépp lu mu tere yaa nga ca damay wax yaa awa léegi ne ko oustaz dañoo jàppal ci moom daanaka suñu borom mooy fole sunu borom mooy yëkkati waaye day am fu ko jaarale man bu ma xamee oustaz mii yaa awa mii moo tax ñu xam ko ci télé bi bu buñ ko xamee fi ñu ko xam yaaw moo tax ñu xam ko waaye oustaz dafa ñëw confirmer loolu jikkoom rafet am xam-xam loxo bu setee mën a bokkali nag oustaz suukar bu la tàggujee sangu ji bu del sa yàggul te kër baay kër baay gétt la rek la sa ndey rat rek loolu ngay naan ah. oustaz kontaan na ci yow na ci yàlla yàlla fay kii wax nag mooy bur géwél maa ngi nii oustaz yaa ma ko tàmmal loxo ci poos ma ñibbi tabaarakallaa jërëjëf kon ñu koy sant bu baax ci teewaayam bii rëy na lool ci ki nga xamante ni mooy oustaz Modou Fall ndax bu xewlee gëstu gis ak waa Laminaan ñu ngi ziar bu baax soxna Dia Sène madame John di ziar bu baax ki nga xamante ni tabaarakallaa mooy soxna mama mboot di sëtu sëñ ma sàmba isa ji lu ci guy tax ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar bu baax alaaji Medoune Fall le sinopeur VIP di nit ku yàlla baaxal moom tamit ànd ak délégation bi nga xamante ni ñoo jóge fële ca l'amiral fa nga xamante ni Oustaz Modou Fall fa lay yendu fa guddee fa lay nekk ak ñoom ba heure tëdd mooy tàqale ko ak ñoom ñoom it ñu def une forte délégation ñëw ànd ak borom këram ànd ak nag ki nga la àndal PDG Sada Top ak ak Serigne Djili Mbacke Serigne Djili Kajoor moom it ñëw na ndax guddi gu ne moom ak ki nga xamante ni mooy Oustaz Modou Fall ñooy nekkandoo fële ca l'amiral ñoom tamit ñu def une forte délégation waa l'amiral kenn desul ak Alaaji Samba Samba Kane ñoom tamit tabaarakallaahu ak oustaz Cheikh Mbacke si la ñoom ñëpp ñëw nan ànd ak bis bi nga xamante ni oustaz Modou Fall amul lu dul moom ñu ngi koy ñaanal Moustapha Amar moom tamit ñëw na ak ki nga xamante ni mooy sëñ Modou Mamoun ak sëñ Bousoobe ñoom ñëpp tabaarakallaahu sa guddi yéen ak ñoom ñooy nekkandoo fële ca Lamiral tabaarakallaahu di fa waxtaan di fa xéewalandoo tabaarakallaahu ñu baax ñu ne fekk leen fa kon bis bi tey bu amee kon oustaz Modou Fall ku ne man bëggoo gis ma ñu sa jili ko mooy muy mën a bàgget ndax daa toog fee sëñ Jili kon nag léegi dafa war a nekk fële nekk fii kon nañ ko may rek mu dem fële te ñëwaat bu ko defee mu daal di ah, ah, accompagner ki nga xamante ne mooy soxna yaa aw bi mu dax li sëñ Ziggy Fatim Penda la su kaa bi maa ñaay am fukki